Waare ak coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ne ji tey jii la ñu gën a dogu ci seen liste ñu rejeté ñu daal di fexe ba yëfe bokkaat ci yooyu la élection ñaawul nañu bu baax a baax it nguur gi nga xam ne moo fi nekk ak ni mu ca doxale waaye Askan Wi ne daañu dem euh, ci cour d'appel yi nga xam ne moom la yëf yi teel ñu déposé fa ay recours ngir bëgg kon yëf yi mën a dellu siwaat rejeté gi ñu dellu ca gannaaw tey jii la ñu ko xamle ci jano boo xamante ne ji doon nañ ko séq ak taskatu xabaar yi mu doonoon ci teewaayu Cheikh Diop askan wi maire bu Fouta la def euh, daal di dëggal boppam ni rek li nga xam ne moom la nguur bu Sénégal bëgg amal mu ñeel li nga xam ne yenn ci ay liste yoo xamante ni moom lañu ñu lañu la jàpp ne du fi amee benn yoon naka noonu itam ñu jàpp ne rek mbir mi ne xoxotal la gën a wundu. problème bi gën a yéeme ngeen suivre que mooy bi nga xam ni moo am Matam problème bu ñu mel am nañ ko Kaffrine. problème yu ñu mel am nañ ko Saint-Louis. kon commune bu ne rek commune bu am importance la ci nit ñi amul commune bu ñu xeeb boo gañewul it la fay fortaatu ci ay voix day ñëw ci cagnotte nationale bi bu ñu waree def le décompte. ren li fi am ñu ngi wax opinion publique bi tey ci yéen lay jaar opinion nationale et internationale que am buñ ko artuwul dinañ àtte. ci loolu itam bile yoo xam ne rek ni daanu yóbbu mbir mi fa mbaxane doone benn ngir rek yoon daal di àtte suñuy avocat ñoo ngi ci travailler et dans les daan ko déposer fépp liggéey boobu nga xam ne liggéey nañ ko ci ay weer laa wax liggéey ko ay at lu nañu jar daj ko ba egsi fii du ñu nangu ñëw ba tey benn préfet wala benn sous-préfet toog fa ne moom ci loo xam ne teguwul ci fenn mooy xëy rek far loolu ku ci préfet boo engagé wul ci élection yii fii ba dans cinq ans doo nekk gouverneur te ñoom xam nañ loolu donc loolu moo tax ñu sonal ñu ci lu bëree bëree bëri préfet sous-préfet agent administratif boo xam ne dugg nga ci complot bi dinañ dal sa kaw ba tey coalition Yewwi Askan Wi di artu askan wi ngi xippi seen i ay gët di xam ne rek ne li nga xam ne moom moo di mouvance présidentielle dafa bëgg teg concu ci li nga xam ne moom moo di seeni ay bëgg-bëgg naka noonu itam ñuy sàkku ci Sénégalais yi rek ñu daal di mànkoo doon wenn say ngir lépp lu ñeel wàllu démocratie ñu gën koo ñoŋal fii ci mim réew mbir meneen mu ñu waxtaane ci seen conférence de presse boobee mi ngi ñel convoqué gi ñu convoqué Barthélemy Diaz mu war kon wuy ji cour d'appelub Ndakaaru euh, fukki fan ci weeru novembre loolee ki nga xamante ne ji moo di Ousmane Sonko gis na ne daal euh, bu dee dem na Sénégalais yëpp àndandoo ngir gunge ji ko moom Ousmane Sonko dañu koy déglu ci euh, micro Cheikh Diop. Barthélemy Diaz sera le candidat de Yewwi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal dix ans nga yor dossier di lambar lambari dix ans dix ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé le lendemain nga naan da koy convoqué moi si j'étais Barthélemy moo uyu yàgg naa leen ko wax nee naa leen man nee nañu am nañ dossier bind naa def naa lu ne nommé leen euh, euh, euh, un juge defuñu ko bu ma demee ba déposé sama candidature suñ ma wooyu du ma wuyu ci demuma respect des institutions day fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu benn personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew bi te kenn ko nangu. ci wooyu le wàll waa cour d'appel dafa communiqué boo xamante ne ji leeral nañu ca convoqué gi ñu convoqué kii di Barthélémy Diaz ngir mu war a teew kon ci appel euh, audience kon en appel ñeel mbirum Ndiaga ju fukki fan ci novembre loolee kon du lu bees bàyyi wuñu ba mu doon candidat Yewwi Askan Wi jël dogal bi xamle nañu ne euh, ñi ngi jëloon kon boobile dogal juróom-ñaari fan ci weeru juillet 2021 ci la ñu jëloon dogalu mu war a wujju yoon te moom Barthélémy Diaz mi ñu convoqué euh, xamoon na ne date boobee di juróom-ñaari fan ci weeru war naa dem kon wuy ji ki nga xam war naa dem wuy ji ca cour weeru novembre ñu leeral ci communiquer bi nekkoon euh, woo giñ ko woo taxewul dara ak euh, élection locale yi naka noonu li mu doon candidat Yewwi Askan Wi ca mairie bu Ndakaaru des ba léegi ci wàllu politique ak candidat benn bokk yaakaar ca mairie bu Ndakaaru di Abdoulaye Diouf Sarr moom ab janook taskatu xabaar yi moom lay amal saa si yëfi di amee ca siège bu benn bokk yaakaar ba ca mermos loolee gannaaw euh, bi ñu déposé liste yi moom Abdoulaye Diouf Sarr nga jano beeg taskatu xabaar yi cinq heures ci ngoon la ñu ko jàppoon la ciy tukkee ney xibaar des na ci dellusiwaat ak yéen kon ci suñu yeneen jotaayu euh, xibaar wàllu politique la ñuy desandi ba léegi ak diwaanu Matam ak la fa xew coalition ànd defar sa gox commune bu département bu Matam eh, dañoo gis ne daal seeni liste dañu ko rejeté ginnaaw bi ñu woowaat leen la taxoon ñu ne mooy ñu rejeté ko mooy couleur yi dafa xaw a nuroo ak couleur yu Benno Bokk Yaakaar muy melokaan wi ginnaaw bi ñu dellu ca gannaaw mujj gi nag ñoom ñi nga xam ne ñoo moom boobile coalition jenoon nañu ak taskato xabaar yi ci buntu préfecture bu Matam Ali Bandel lañ ciy yàndal Yewwi Askan Wi nga xam ni dañ leen forclos ci mbooleem commune yi département bu Matam liste yi ànd defar sa gox kat tuuti lambay ñaaw foofu la itam ci xaaja guddi la préfet bu Matam su préfet bu añam ak su préfet bu Ogo dal di ku ne woo mandataire bi nga jokkaloo woon xamal ko ni ci ab këyit bi ñu leen jox ni seen list yi dañ koy rejeté. ndaxte ñoom ci seen yaakaar dafa am ressemblance suñu list ak liste benn bokk yaakaar li nga xam ne Sénégal yëpp seet nañ amul benn ressemblance. ndax ñun liste bi dafa am couleur jaune bu am bleu am rouge bordeaux et yaakaar naa couleur yëpp amul benn bële ci liste benn bokk yaakaar bi ñu waxee sax mbirum fas bële bopp fas moo ci nekk fii fas o complet la ele ay laaf moo ci nekk maanaam fas buy naaw xam naa lu muy naaw moo tax mu déranger leen. gannaaw fukki minute ak juróom ba ñu jotee seen këyit bay waaj a ñibbi seen dëkkuwaay ñaari sous préfet yile ak seen préfet bu Matam daal jëlaat téléphone bi ma woowaat mandataire yi bi la yoon nag ak beneen dogal la. à notre grande surprise te ñun xam nañ ñoom ñoom dañuy génne woo parce que xam nañu fi jaarul yoon. Et ce qui est plus grave, nous, nous sommes des gens de l'État. Nous, sommes, nous, nous, nous, nous, servons le pays à un niveau très élevé. C'est la première fois qu'on voit dans la région de Matam des notes similaires. Donc, quelqu'un m'a envoyé nous changer de truc. Il y a 5 minutes ou 10 minutes après, comme nous avons dit, je suis natango, nous sommes commune. Nous avons dit, nous avons des notifications, nous arrêté, nous déchargé. Et dire à nos militants, nous savons que nous avons fait la coalition, que maanaam ci gàttal dañ leen ko sant pour ñu def ko ku leen santoon ñu bind ko moom moo leen war mën a retirer leen et ce qui est plus grave comme si rien n'était loolu ñu wax waaye nag dañu fàtte comme disait notre patron notre cher président Macky Sall la magie des clics ñu nekk fii ci biir maatam fii tëj dëkk bi bëgg a jël ay ndaw ñoo xam ne dañu liggéeyal Macky Sall démb avant tey war a ñëw xeex pour wane indi ay changement ñu bëgg ñu tënk ci biir Matam yaakaar Sénégal du ko yëg. mu di ay ndaw cadre yi nga xamante ni ñoom ñëpp ay kilifa lañu ci biir APR candidat yi ànd ak liste ànd defar sa gox kat ab ndaje taskatu xabaar yi lañu amal ci kanamu préfecture bu Matam ñoom ñi gën a féddaliwaat seen ànd ak président Macky Sall ñu ngi woo askan wi ñu gën a takku taxaw mobiliser wu ngir que ñu folli mboolem maire yi nga xamante ni jàpp nañu def ñu dara ci seen ay gox. leneen ci wàllu xibaar mu di université Gaston Berger ba ca Ndar ak euh, li nga xamante ne ji moo di euh, ñaari kontam yu ñu bloqué woon ndax bor bu ko fisc bi di topp toll ci juróom-ñaari milliards ci ni ñu ko waxee xibaar yi ñu mujjee jot sa moo di kon euh, may levé am na ci compte yooyu maanaam kenn bloqué tu ko mu di ñaari compte yi mu di xibaar boo xamante ne ji chef centre service fiscaux ba ca diwaanu Ndar kon dëggal na ko. KMS 3 di is machine usine ndox ba ca kër Momar Sarr nekk ci paan askan wi dundu jafe-jafe ñàkkum ndox lu ni mel nag tax na kuréel yi taxawee jëfandikoo yi jukkoon di ca wax ñaawlu nañu bu baax a baax usine boobee nga xamante ne ji réceptionné guñ ko sax maanaam liggéey ba pareeguñ bañ jébbal ko kilifa yi mu tàmbalee paan bëgg nañu it ñu fexe xool ana fan la jafe-jafe yi amee bu ko defee ku ñu war a teg ci saw ndodd ay daan ñu daal di koy def Momat Cissé bu asko seen la ñu ci déglu ci micro Abdourahmane Diallo dañ dund bu métti ñàkk ndox bi nga xam ne moo am ci gox yi muy Ndakaaru Thiès yi nga xam ne ñoom ñoo doon jële ci lac de Guiers lu ko waral mooy paan boo xam ne ñu mu ngi am ci conduite bi muy lu teel trop ndax boo xoolee tey usine bi at li ci war yëpp coûté nañu plus de deux cent milliards de francs CFA réceptionné wu ko sax donc usine boo xam ne ñu ngi ko dimensionné woon sur deux cent mille mètres cubes jour jotagul a def lu dul cent mille mètres cubes jour muy am ay fuites war nañu situer les responsabilités soit c'est la qualité soit utilisation bi nga xam ne moom lañ koy def moo baaxul te bu boobaa durée de vie ouvrage bi du yàgg donc war nañu créer pour loolu am une autorité de régulation ba nga xam ne moom mooy nekk njaxaanaay entre les acteurs protéger le consommateur parce que contrat bi ñu am ak ñoom mooy dañ ñu war a jox ndox mu bari ndox mu sell te mu mucc ay dog-dog autorité de régulation boobu dina tax mu am joxañ ki nga xam ne moo fóot te bu boobaa war nañ mun a dédommager ci loi bi consommateur bi waxtaanee wàllu tàggat yaram ak euh, lamb lii di tournoi CEDEAO Sénégal kon mi ngi tëyeeb tiitram ba léegi ci boobule tournoi mu ñeel juróom-ñeenteelu édition bi Sénégal kon ci final bi moom moo duma Niger jàpp leen ne ñeenteelu euh, ñeenti victoire ci benn kon la am muy juróom-ñetteelu yoon muy jël kon raw gàddu gi ci boobile euh, championnat. wàllu làmb ba léegi ak mbër yi nga xamante ne ji kon ñi ngi seet nu nuñ leen di gën a mën a tàggatee ngir bu ñu bàyyee làmb am lu ñu def loolu association formation et insertion des lutteurs du Sénégal moo ko moo jugal xalaat bi lu toll ci juróom-ñett fukk ci ñoom fexe nañu ba ñu xam huitième garde du corps rapproché mooy lan tey ji lañ leen doon jébbal seen lijaasa doonoon ci teewaayu Cheikh Sadibou Diarra. mbër yi seen lim toll ci juróom-ñett fukk jàngal nañ leen ni ñuy defee garde rapproché ci association formation ak insertion des lutteurs du Sénégal ak fonds de financement de la formation professionnelle et technique. ñu xam léegi lépp li métier garde rapproché di laaj. Euh, normalement formation bi dafa war a nekk un an boo ilaa bu nekkul un an nekk trois mois wala mu nekk six mois mais dañu leen defal formation accélérée. protection euh, garde corps il faut ñu euh, former la nga taxaw physiquement ñu entraîner la nga defar sa cardio ba pare jàngal la. technique de combat yaa ngi dégg jàngal la ni ngay mënatee nit ak ni ngay accompagner sa VIP ak ni ngay dégager si toutefois que problème am ni ngay ànd ak sa VIP ak. ñii bokk ci promotion bi ñu duppee mbay Gueye mbër ba woon jàpp ni ndimbal bu baax la. Eh, di nga doon ànd ak euh, benn autorité ngay ànd ak moom di ko gérer sécurité am te mu wóor na tey lii ngay def nii amoo diplôme amoo dara léegi nag du ñu yor suñu diplôme yàlla def ñu yor suñu carte professionnelle xam nga tey lu ñu bëgg def rek mën nañ koo def mais nag. duñ ñoo jàngal discipline yar teggin franchement formation bi am na njëriñ loolu làmb maanaam benn laps de temps la xam nga làmb soo ci nekkee da ngay da ngay def làmb plus leneen mooy que ne plus métier mais soo bëggee yem ci làmb kase kase kase yaakaar naa loolu maanaam da ngay am da ngay am déception quoi. association bi waral formation bi di xeex ñàkkum xëy gi. tey FILS bu ko dajalee formé na lu tolloog 300 lutteurs yoo xam ne tey. ñii formé nañ leen ci sérigraphie ñii ci euh, garde corps rapproché ñii ci leneen noonu la ñu wooyee état di leen ñaan ñu gën ñu dooleel que la jeunesse c'est l'avenir d'un pays te tey buñ leen jàppalee formé leen wute leen ay xëy yàlla mën naa def du bëri dina wàññeeku ci réew mi. doon mbër dundalul li ëpp ci juróom-ñetti junne yi ciy yëngu teel a am yeneeni buntu dina leen jàppale bu baax ngir tekki. jaa jëf mbokk yi ñoo ngi rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média foofee la ñu yem ak yéen ci xibaaru euh, dimisi 20h xibaar yi dina dellusiwaat ci tubaab ak soxna Naata ñu fanaan jàmm ba suba ak jam